fii ci marché bu Tivaouane Peulh lakk-lakk bu metti moo fi am bi mu ngi xew bésub samedi fukki fan ak juróom benn ci weeru mars atum 2024 bi 6 heures du matin jotee lii nag mën nañ cee xayma lu toll ci fanweer ak ñetti cantine yu lakk ba jax tàkk ñu mën koo xayma itam ci 64 millions ci suñu koppar. ma jël ñaar bëccëg nda fii àll la sécurité rek moo fi mën a ne juróom ñi six heures la ñuy monti ci ngoon ñaar ñi huit heures la ñuy monti ci suba tey nag ba xam nga fajar mu ci six heures dix ci la jël portable bi am numéro bu ma gis numéro bi dara ñu appel ma ne kii de moo ma woo waaye man gis ma fi appel ma woo ko mu ne ma yaay dangaa juum man la fat cubb ma ne ko yaa woo mu ne ma déedéet kon xale ya laa portable ma coupé ma jàllaat doo ko gis numéro gardien ma woo ko mu ne ma marché bi lakk na ba jeex ndax ba ma jullee ba ma selmi war naa nekk six heures quinze mu ne marché bi lakk ba jeex ma doo fogg sama caat mi ma ne ko jobal yóbbu ma marché oto mbaa ngi ci buntu kër ci la xale bi jóg andi ma fi ba ma jubee mu ñëw ba fële mu taxaw mu ne ma yaay mënu maa yegg sawara see oto mënu faa dem mu ma sawara bee oto mënu faa dem ma ne ko wax nga dégg mu gaare ma dow ba ma tolloo fee ma seen sawara bi def dara jarul ma xam ne fii moom taxaw ma fi sis 33 ak benn ak ak ak ak fi lakk ak taabal yi ñu toog gis nga lii yëpp dafa lakk 64 millions toppa na weccet dañ koo bind ki ko bind newu fi damaa xaw a sori sànqaati topp na koor la ñu ne am na ñoo xam ne dañoo jël banque am na ci ñaar ñu ma xam ku ci ne jël nga ñaari million loolu moom leer na ma koor bu jotee dañuy jël banque sar seeni bagage di liggéey loolu moo tax affaire bi métti affaire bi li tax gën a métti dafa tombé koor ñëpp jël banque sars li fi yàqu nii alal moo fi yàqu. bi lay jëye doon lu metti lool ba jamono ji xamuñu lu ko waral wante ki nga xamante ne moo jiite marché bi jàpp na ne lépp lu leen dal seenub maire moo leen ko teg. xamuñu xamuñu xamuñu ngi naan courant la xaw waaye lu mu mënti doon càggante maire ci la càggante maire ci la ndax ñu ngi fi ñëw 2019 lañ fi ñëw 2019 mu ne ñu 6 mois rek ngeen fay def ñu pare mars ba léegi ma dem jënd bagage ñu mbaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 juróom benni at seen nga mën koo dund ak prix su géej gi ku gis mbaar yi gis ngeen ko ku gis mbaar yi nga xam ne càggante dëgg dëgg dëgg mënut a rombali li tax mënuñoo fay juuti lii moo tax duñ fay juuti ndax ne amuñu marché dunduñu ci ci nawet ba mu jubee ren sept cent mille laa génne jox leen ñi jënd ay tuwa tuwaale amuñu fi ñaari fa tàngaayu togg ndox mi yëpp sunu ko ñu woo sama kër ñu ne ma dañoo bëggoo ñu waxtaan nan la ñuy def man leen ci lu mel nan ñu ne léegi ngeen dellu marché bale man leen marché bee yéen de yéen a ñu woon ci marché bii xam ngeen ñaari taabal fi taabal yi moom ay xale dem nañ xale yu góor yi nekk ci marché bi nañ ñaar téeméer taabal kot marché bi ñaar téeméer taabal mën na ko dugal mu jël marché bi xaaj ko ci digg bi jot ay milliards dem yóbbu ko sokaa beeg wàcce ñu fii lii ci Tivaouane Peulh moom dakaar deux cent ngay par dem Dakar li bu ko Macky Sall gisee dina waaru fan la te Macky Sall joxe na de ay milliards la joxe pour nañ defar marché Tivaouane Peulh ñu sànni ñu dem defari feneen jaaykat yi am lu leen metti lool ndaxte seenub alal lu bëri moo ci nax saay jamono ji ñuy dunde yaakaar ku ci mel ni waay ji nga xamante ne mu ngi nettali li mu yàqule ci bile jëya marché bi sama place du ma ci yàqule daanaka dara desul quoi lépp lépp lépp a yàqu dara dara desul bon maa doon jaay comme divers yi gars jaay si marché bi comme li bitig di jaay aussi lépp dama koy jaay aussi dama yor ay machines yoo xamante ne neuf machines la yu mag yoo xamante mooy wal poobar kaane ay laaj ay jinjeer mixeur yëpp moo ko amoon sama place aussi mais yëpp dara génn ci yëpp jeex na bon xaalis bi ma bàyyi woon fii rek comme démb bi muy dem parce que dañoo commandé woon ay bagage daanaka xaalis bi ñu fi bàyyi woon boo xam liquide la dama ko bàyyi woon fii deux cent trente bu dee ci wàllu xaalis bi fi bàyyi woon démb bi deux cent trente mille ak non marchandise moom bi ñuy mujjee éventé ci koor gi nii daanaka dem na deux millions cent dix mille waaw si bagage yoo xamante ne lépp bagage la moom. gannaaw ba mu yegee bi la jëya Momar Soxna Diop di maire commune bu Tivaouane Peulh Niaga sol na ay dàllam ànd ak délégation ñëwoon ngir masow ñi nga xamante ne ñoo loru ci bile mbir. dañuy santaat suñu borom ndax euh, ndogal moom fu mu jógee dañ koy nangu. dañ koy nangu ba pare après def ci ay jàngat tey ci xew-xew bi am ci guddi gi mu am fa lakk-lakk am ñu yàqule suñu borom def na que benn bakkan rotu ci loolu moo tax may wax di waxaat nañ dal nañ dal ndax li fa xew mën na jur yeneen jéeyo yoo xam ne dafay gën a metti waaye suñu borom suturaal nañu ba benn bakkan euh, gaañoo ci te gaañ-gaañ tamit dégguma ko fa li ñu fa constaté mooy bi ñu ñëwee fekk nañu fa ay cantines yu yàqu yoo xam ne safara bi moo ko lakk di loo xamante ne si vraiment ñu ngi koy euh, naxaralu ci ànd ceeg ñi nga xam ne ñoo yàqule. gannaaw yi la kàddu Momar Soxna Diop jàpp ne jot na tembe ngir mu ñëw taxawu ñi nga xamante ne ñoo loolu ci bile jëya tax na mu ne am na ay mesures d'accompagnement yoo xamante ne dina ko jël ak équipe bi mu àndal. waaw d' abord li may njëkk wax mooy di leen di masawu mooy première mesure d' accompagnement mooy leen di masawu leen di wax tamit nañu xool lii indi daay bi ndax mën naa mi ngi fa ba léegi loolu tamit dafa am solo ak service technique yi danañ demaat foofu xool ci suñu gëstu ndax lii indi woon daay bi mi ngi fa ba léegi loolu mooy première décision à prendre ñaareel bi may wax d' abord na xel yi dal ndax alal dong moo fi moo fi sey na xel yi dal kon. bu fekkente ne xel yi dal na waxtaan mën a am am naa yaakaar nekk dana ubbi yeneen bunt yoo xamante ne si dana ci am lu mu ci mën saafara mais tey xam nga incendie bokkul sama compétence incendie mënul am rek ñu ne jël nañ xaalisu mairie bi dem nañ ko fay ñi nga xam ne ñoom ñoo yàqule ci marché yi mais suñu njaboot la ñu ci bare li tax ñu ubbi woon marché bi mooy woon dem jël ñi nekkoon ci marché bu njëkk bi def leen ci marché bi loolu moo tax ñu ubbi marché mais marché bi ci ginnaaw daf ci am yeneen yu ci dolleeku yoo xamante ne si taxuñu woon jóg loolu yëpp tamit euh, waxtaan rek moo ko mën a defar. lu soxal bërëb bu jaayukaay bi nga xamante ne ci la jaaykat yi njëkkoon nekk ba ñu tuxal leen indi leen ci bërëb bi doon ko liggéey nag liggéey bi noppi na juróom benn at a ngi ni ñu tëj ko kenn ubbiwu ko Momar Soxna Diop jàpp ne jot na tey ngir ñu indi ci ay leeral. leeral bu njëkk bi mooy euh, commune Tivaouane Peulh Euh, jëloon na matuwaay yëpp ba tabax marché bu bees marché boobu tey ñi yàqule tey marché bi ñu nekk euh, marché provisoire la woon le temps que marché principal bi à Tivaouane Peulh mu pare marché bi pare na xaw na yàgg tuuti sax ubbiguñ ko te ñu bare mën nañ bañ a comprendre lan moo tax ubbiguñ ko te raison principal bi mooy li nga xam ne moo gën a tax mooy bi ñuy jël askan bi ci marché wu Tivaouane boobu di leen di yóbbu foofu pour diggante bi ñu war a tabax ñu dellu siwaat dañu xayma wan ñaata doomu aadama ñoo ci war a ñoo fa jóge ñu am nombre boo xam ne ñu jàpp ne que buñ ko liggéeyaatee lu ñu toll wala lu ko dolli tuuti dina fa mën dugaat yàlla def marché bi pare ñu jot ci am ay waxtaan mais réero dafa am ci biir ndax tey bërëb biñ ñu abal te ñu toxal fa marché ba bërëb la boo xam ne lañu fa dugal ci ay jaaykat dafa ëpp li nga xamante ne si moo nekkoon ci marché bu njëkk bi. donte bi la jëyee doon na lu metti lool Momar Soxna Diop meeru commune bu Tivaouane-Peulh ñàgg mu ngi ñaax ñi nga xamante ne bii ñoo di jaaykat yi ngir ñu moytandiku lépp luy xeetu branchement sociaux wala itam nekkin wu jaarut yoon te itam di faral di jur yi la xeetu jëya. branchement clandestin yi ñuy def ci marché yi fu neex waay xëcc fiil dugal loolu mën na jur yeneen. jëy waaye loolu nag enquête bi moo koy leeral marché bu bees tàq mu ngi tëjee ñu liggéey ko ba mu pare joxe place yi rek moo des waaye joxe place boobu tamit ki nga koy waxtaanal day dal day dal xam nga man mënu ma nekk kilifa nekk maire commune Tivaouane Peulh Niaga di nettali li xew ci biir marché bi mais ñun ñi xam marché bi xam nañ ne am na lu jaaduwul lu fa xew waaye nag incha allah. Euh, comme que yàlla may na ma ci sama euh, euh, ndombal tànk ma mën jël yenn dogal incha allah dogal yu gaaw yu bees dana ñëw ndax marché bu bees bi danañ ko tijji marché bu njëkk bi tamit danañ xool nu ñuy doxale waaye mënutul continuer ci condition yi. jamono ji lu toll ci fanweer ak ñett ci ay cantine lakk nañu ba jax tàkk ñu mën koo xayma ci 64 millions ci suñu koppar. jaaykat yi dem ba amatuñu yaakaar di sàkku ci kilifa yi réew mi ngir ñu ñëw taxawu leen bu ko defee ñu mën a jotaat seenub doole